Principi, la fe de prójimo maa ngi Seydou Dafe dëkk Pikine. tey lan mooy seen ndaje bi tey. ndaje bi waral doomu ak titre foncier wu Pikine moo am lu ko metti ndaw yi fi gis yëpp ay doomu Pikine lañ ay deretu Pikine Pikine dëkk yëpp màgg nañ romb Pikine depuis 62 ba léegi Pikine a ngi existé mais Pikine amul dara lu bees armée yi tëdd ku ci yeewu woon da jubal dem seen kër direct parce que Pikine bi nga fi bàyyoon ba léegi moo nekk état bi muy Macky Sall le président dafa am loo xam daf ko war Pikine waay benn benn wax la wax ak waay ba léegi defu ko mooy lan armeelu Pikine daf ne woon da yokk ba décret bi génn budget bi nekk un milliard. 359 000 li ñu waxoon ne 7 mois lay def ci yoon bu doon li ñu waxoon respecté nañ ko tey jii nii yaa mois prochain la ñuy ubbi mais liñ fi defoon ba léegi zéro travaux yi dañ fa quelques camions arrêté amul dara lu ñu defal Pikine amul ben maire du politicien du kenn koo xam ne taxaw nga pour xeexal Pikine Pikine amul ndey amul baay. sonn amul bàjjan. amul ma tey nekk euh, ndeyam parce que ñun ñooy doomu Pikine yi. ñun ñooy Pikine. xamal ma wax Pikine fi mën a trouver loo xam ne état bi def na ko pour Pikine. amul amul. amul amul Pikine Pikine jamono. riiris moo fi nekk tëli bu mag. tali bees i ko taaf ba léegi nii ba ginnaaw raay amul benn lu fi changé léegi ngeen bëgg lan ñu bëgg benn li sama camarade yi wax Pikine dafa war a changé fan lañ ko njëkk a sentiré su suñu ay frère ñu liggéey ñu fi nekk ñëpp comme ni ko Mor Talla waxee amul kenn ku ci am xëy Pikine lan la ñuy waxal boo demee yenn dëkk yi di nga dégg ñu ne diw foofu la nekk da nga naan Guédiawaye ñun la Malick Gakou xam li mu la nga ne Pikine ñu ne keneen lan lañ fi def député amu fi suñu maire bi fi nekk lan la fi def ñu ngi jëm ay élection ngeen amul saafara nan ngeen nar non li ñuy def ñu kuy sax ku yóot du saxat te dañ leen di wax benn affaire li fi nekkoon woon ni na ko non Pikine amul benn doom bii noir bu ñu fal li fi nekk ñëpp ay daw laaxu lañ te Pikine dañoo nekk benn benn dëkk boo xam ne gis nga dañoo mën gan dañ lay ganale ba nga dem ba yow bëgg ñoo noot fan ni ci ginnaaw defoon ngeen benn sortie waaw mel ni euh, bi ngeen defee sortie am na ñu defaat sortie seen ginnaaw am luñ tuuma yuñ teg seen comme ñaan comme ñaan ñi nga xamante ne ñoo ànd ak kenn lom ba non ñu ñooñu Sall moo leen intéressé ñun Macky Sall intéressé wuñu ñun Pikine moo ñu intéressé Ablaye Timbo intéressé wuñu Pikine moo ñu intéressé déjà armée li bi ñu waxee ñaata mois la ñu waxoon ñëw nañ préfet ñaw Pape Gorgui Ndong ñëw Ablaye Timbo ñëw ñu taxaw wax fii li ñuy wax commencé déblayé fële jour bi Ablaye Timbo di woo directeur u maa ngi taxaw xam la ko directeur u euh, tontu na ko impasse yi ñuy bay foofu ak euh, angaaru euh, kii Ibrahima Khalil Fall bi nga xam ne dañ leen war a dédommagé Ablaye Timbo moo na woon moo koy dédommagé loolu du lu ma nit nettali gémma ñoom suma nopp mais ba tey zéro

gars yi dañuy utiliser. les temps. amul benn parti buy taxaw ne Pape Seydou am na maire bu taxaw wax ak man wala kii ku taxaw wax ak man ba jéem ne lekk naa fukki dërëmam wala juróomi dërëmam sama baat ci kaw ñoom ñëpp lan lañ may waxal waa ji dafa tàng waa ji xeex rek lay def dugub non xeexuma sama dëkk sama kër sama fief lay xeexal te lu ma ci am jël nag ñu ngi leen di jaajëfal